dañoo jël askan bi lu mu moom di ko jaayaat askan bi loolu lañ def lii moo waral courant bi cher keneen keneen seen wax na dëgg lii moo tax courant bi cher lii moo tax yi seen dund cher mais sénégalais seen dara warul cher seen lépp a war a yomb ndax lépp lu ñu yàlla yombalal yàlla lépp lu ñu yombalal tout tout wala dama ko yàgg wax ñi nga askan lépp lu askan bi soxla pour dund dund bu mucc ayib pour dund dund bu am tawféex yàlla jagleel na ko Sénégal billaay walaay talaay tam la nga laaj borom xam-xam ñoom la ñu ko Sénégal daraam warul seer daraam warul seer léegi nag li tax parce que sànq maa ngi doon wax ci euh, maa ngi doon wax ci. Euh, sorti Abdou Karim Gueye bi di jëm ci wàllu Guinée yi sunu frère Guinée yi mu nekk di jëm a maanaam gëdd Sénégalais yi nan leen ay respecté leen Guinée yi yeeg ay nangam-nangam Abdou Karim Gueye Sénégalais yi ñàkk ñu respect Guinée yi Sénégalais yi duñ mës a ñàkk respect Guinée yi parce que Guinée yi depuis les années soixante dix la Guinéen yi presque plus de un million de Guinéens dugg ci senegal ça n'a jamais causé de problème Guinéen yi si depuis les années soixante dix dañ commencé immigré dugub biir Sénégal ñu bëri tey jii xam nga ñu bëri tey Sénégal ñu ngi leen jàppee ay guinéens ñu leen jàppee ay sénégalais mais ay yi lañ en réalité ay guinéens lañu. parce que bi ñu amee crise ñoom Guinée bi mu amee crise ay années soixante dix yi ak Sékou Touré Guinée yu bëri si lañ taw si dugub biir Sénégal ñu immigré wu Sénégal Senghor nëbb leen fi musul poser problème Sénégal yi Sénégal musuñu am problème yooyu ñun sénégalais yi amuñu problème mu maanaam dëkk ak étranger yow Abdou Karim Gueye xam nga ne Sénégal c'est un peuple accueillant xam nga ne sénégalais yi si un peuple accueillant Sénégal dëkk maanaam askan bu yaatu dënd lañu. Sénégal askan bu yaatu dënd nañu Sénégal ñu am problème mu diw kii diw diw lii la wala diw lee la kii national lijjantiwuñu loolu sénégalais yi lijjantiwuñu loolu mosul nekk seen problème mais buñ demee ba sénégalais di taxaw di dut baaraam. ñenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo étranger yi nekk Sénégal parce que sénégalais dañoo gis dañ maanaam dañ leen a seen seen si suñu si boo xamante ne day dem war a jëli ji kayit doomam ñu la ko ñu ko sa doom amul kayit wala moom si boppam moo a dem jëli ji kayitam ñu la ko amul fi kayit muur bi dugg dem di xool nan la kayitam jaar fan la kayitam jaar mu gis ni benn guinéen moo ko yor étranger moo ko yor te étranger boobu boo xoolee guinéen la mais loolu sénégalais nag bu amee ci benn sénégalais ñaar ñett bu am ci voilà commencé bëri mais c'est normal sénégalais ne mais qu'est-ce qui mais Guinée ñoom lan ma seen problème la moo tax dafa mel ni ñoom dañoo bëgg ñëw maanaam remplacer ñu suñu biir réew en fait ñëw suñu réew ñu xajal leen ñu bëgg nangu suñu identité mais loolu Abdou Karim bu fekkee loolu da ngay da ngay maanaam loolu da ngay bañ sénégalais yi kaas ko Abdou Karim Gueye nara ngaa nar a sonn yi dañ ko kaas parce que nag lu ñu war a kaas la lu ñu war a kaas la Abdou Karim Abdou Karim Gueye man dama xamul yow maanaam voilà fooy jaar wala Abdou Karim Gueye maanaam lan ngay wax yow Abdou Karim Gueye ba sénégalais yi duñu récupérer seen identité sénégalais yi génnuñu dem dem dëkku jàmbur de ñu perte fa seen identité seen biir dëkk lañu nekk am ay étrangers yi ñëw seen biir dëkk yi fekk leen fa nangu seen identité di dox ak moom Abdou Karim Gueye loolu yow loolu yow boo taxul kaas ko sax. ma doonatoo ki nga doon woote woo en fait ki nga doon woote woo parce que c'est le Sénégalais avant tout même si même bu fekkee CEDEAO lañ nekk CEDEAO nekk biir CEDEAO ça n'empêche pas à ce que Sénégalais yi maanaam ñu ñàkk seen réew ñàkk seen bopp. wala Abdou Karim da nga comprendre lan mooy CEDEAO en fait Abdou Karim Gueye da nga comprendre lan mooy CEDEAO en fait da nga comprendre lan mooy concept CEDEAO nekk maanaam bokk CEDEAO taxul ñu ubbi ndey sunu réew mi golo gu golo bu tëb ñu dugg nangu nangu suñu suñu kàddante di ko doxee ñu ñu toog di xoolal loolu du CEDEAO ah. bu fekkee lu nga foog ne mooy Abdou Karim mooy CEDEAO loolu du CEDEAO sénégalais mosuñu am problème benn étranger ñëw ci dëkk bi di fi dund daal wax affaire yi nu mu demee waxal affaire yi mu demee sénégalais mosuñu am problème étranger dox ci dëkk bi ñu ne ko eh, yow fii du sa place wala dëkkoo fi au contraire sax sénégalais bu mu mën dañoo tolérant dañoo tolérant bu mu ëpp parce que tolérance boobu sénégalais am moom moo waral sax li xew-xew nii moo waral gars yi ñëw fekk ñu suñu biir dëkk nangu suñuy identité ba pare nag di ñu jaay affaire loolu sénégalais di naxalu sénégalais yi amuñu benn problème à ce que benn pël wala benn ñàkk nekk ci dëkk bi di dox di faj ay soxlaam di dund mais sénégalais ñun loolu mais mais loolu ñun <laughs> naka la mun mën a defee problème ñun ay nit lañ ay doomu adama lañu te ñun dañoo civilisé. mais nag bu fekkee dañoo nar a ñëw suñu dëkk bëgg ñoo xañ suñuy ax ak suñu yella suñu biir dëkk ñun loolu Abdou Karim Gueye man xaw ma tu vas user de quelle ruse ba duñ ko lu jiit gisuma ko donc nag booy wax saa rek waxal ak mindset Abdou Karim Gueye bay wax waxal saa wax ak mer parce que mu déggee nga yow dafa mel ne nga am mer sénégalais yow Abdou Karim Gueye dafa mel dafa am benn genre affaire boo jàppal sénégalais yi peut-être que dafa am benn boo foog ne yow nga am ci réew mi te joxuñu la ko. peut-être je sais pas parce que man damay sous-entendre loolu damay damay maanaam damay sous-entendre loolu ci say wax que ni yow dañoo waroon ériger en en euro Abdou Karim Gueye dañoo waroon a voilà dañoo waroon a yëkkati dañoo war a jox benn statut bi damay sous-entendre loolu sax dafa mel ni comme si Sénégal dañ laa trahir booy booy wax loolu laay noonu laay dégg quoi man damay dégg. comme quoi que ngay maanaam ngay sous-entendre que ni sénégalais dañ laa trahir sénégalais joxuñu la maanaam joxuñu la sa cër bi nga moom wala boog delloo ñu la njukkal non bu fekkee da nga doon xeex ngir Sénégal xeex ngir yàlla Aboubacar Ndiaye loolu doo ko xaar non doo xaar loolu te booy wax dama loolu laay dégg quoi waaw booy wax loolu laay dégg donc Aboubacar Ndiaye bàyyi sénégalais yi ñu xeex seen i àq yelleef ison ont tout à fait légitime légitime c'est tout à fait légitime sénégalais yi xeex seen àq ak seen yelleef waaye may woo le ministre Balla Moussa Fofana avant muy dem di digitaliser li nga xamante ne mooy état civil bi na régler problème bi ba pare waaw ah, na régler problème bi ba pare moo moo gën a yendu maanaam le ministre Moussa Balla Fofana digitalisation état civil bi nga bëgg a def lu baax la c'est bien mais am na préalable waaw ah, am na lu ko jiitu lu ko jiitu mooy nga def li ñuy woowee état des lieux xaw ma audit ci état civil bi ba pare parce que bëri na sénégalais yoo xam ñu ngi tax tey yor ñu seen i carte d'identité amatuñu identité ils sont plus sénégalais tout simplement parce que am ñu jël seen kii dem jaay ko ay étranger loolu da nga koy rétablir ba pare. bala Moussa Fofana loolu foog nga rétablir ko ba pare ñu mën a distinguer kan mooy sénégalais ak kan moo ko nekkul waaw ñu nekkul sénégalais ñu xool lu ñu leen di jox leen ay titre de séjour s'il le faut ay titre de séjour yaa ngi dëgg bu ñu amee droit wala boog bu ñu mën jox nationalité ñu jox leen nationalité am na problème mais nañu régulariser quand même ku ci yor këyitu Sénégal këyitu doomu Sénégal di ko doxantoo ñu nangu këyit boobu daloo ko sénégalais loolu nag Abdou Abdou bala Moussa Fofana laay waxal. Balla Moussa Fofana le ministre Balla Moussa Fofana lii liggéey boo war a jiital la ci digitalisation boobu lii liggéey boo war a jiital la voilà c'était nag nga dem xam nga. xool li nga xamante ne moom mooy sujet yi ngeen dem xool li nga xamante ne moom mooy sujet yi patriote yi ngeen ciy débattre te bàyyi te génn ci euh, détails yi ngeen nekk dégg nga yéen patriote yi laay wax ngeen génn ci détails yi ngeen nekk topp ci ay Suzanne Camara ah Suzanne Camara bi nga xamante ne yaa ngi dëgg c'est un malade mental Suzanne Camara malade mental la ay malade mental ngeen di jël di di laaj si ñoom yëgal leen niveau bi ah parce que niveau bi yëg na waaw niveau bi yëg na yëgal leen niveau bi da ngeen bàyyi ay Suzanne Camara yi ngeen topp naan la ngeen di laaj si ñoom voilà. am nga jaajëfal yéen ñëpp.